Anta Babacar Ngom Diack moom rekk mooy jigéen bu bokk ci élection présidentielle bi. non yombut yombul te musta yomb wante toll naa foo xamante ne maa ngi koy bëgg a tàmm ndaxte fukki at ak ñeent fukki at ak juróom dara la bëriwut bëri na at yooyu yëpp nag maa ngi nekk ci entreprise boo xamante ne métier yi muy liggéey dañ koy tàmm xam ci ay métier góor danga ci ñëw wéet si. wante góor góorgóorlu nañu ba nga xam ne intégré nañ ci ay jigéen yu bëri ba ñu tàmbali see gis seen bopp ci ay poste nag de responsabilité du ne rek euh, yenn poste yi gën a yomb la ñuy jox jigéen ñi déedéet ay kilifa la ñuy doon ci ay ci environnement boo xamante ne jàppoon nañ ne environnement góor la mu ñëw dugg ci làngum politique yàlla defaat li muy def 19 candidats benn jigéen Anta Babacar euh, amul lu ñuy changer wala lu ñuy soppi wala ñu war ko def différemment gëm sa bopp la am fulla am fayda am engagement ak détermination. li ko tax a jóg dundalaat yaakaar. li fi nekk yépp ci problème ñu koy jànkonteel di ci nit ñi gën a bëgg wala ñu ci gën a soxla mooy liggéey li ñu naan remettre le Sénégal au travail te loolu ñun dañ ci am xam-xam bu ko teg lal ci yoonu industrialisation. parce que capitaine d'industrie la yaakaar naa ne loolu mooy solution bi Sénégal toll na foo xamante ne industrialisation lañu war a wax ci secteur d'activité yépp mbay mi càmm gi napp gi tourisme artisanat bi nga xamante ne tey mi ngi employé plus d'un million deux cent mille sénégalais di ci dugg bu ñu réglé woon problème yooyu tegaat Sénégal ci yoonu liggéey yaakaar naa ne problème yu bari dina saafaraw mbébétam ngir réewu Sénégal am na solo ba tax mu mën a soppi xalaatu góor rekk moo mën a jiite. lu wër Sénégal question bi laajte nañ ko est-ce que Sénégal pare na pour am président de la République bu jigéen liñ ci am yépp comme retour wan nañu ne jigéen war naa mën a jiite Sénégal ci naka une format boobu nag dañ koy soppi du jël jigéen ñi rek rangale dugal leen ci bus def leen ñu niroole joxe 2000 francs 3000 francs bu tàccu jotee ñu ne mobilisation déedéet bi jigéen ñi ñoo taxaw amal seen bopp seen candidat góor ñi tamit gis ci seen bopp ba nga xamante ne jigéen war naa mën a jiite mim réew. mu mel ni lii di langue politique bi amatul benn secret ci moom te moo ne defagu ci at muy wane ne mën naa taxawal ab projet bu jaar yoon waaye du bu ndaw. bëgg gi ma bëgg senegal te gëm ne keneen gënuma koo bëgg ak gëm gi ma gëm senegal ak sénégalais yi ndaxte Sénégal suñu réew daf ñu yàgg a defal. dafay jot benn instant ñun citoyen sénégal yi ñu delloo ko li nga xamante ne jox nañu ko devoir la sas la ku nekk si ñun war nga mën a seet lan nga war a mën a defal sa réew bu ñu dépassé question wu looy defal sa bopp wala loo mën a amal sa bopp war naa mën a defal sama réew man bi ma ko jàngatee xool sama bopp ak sama jaar-jaar ak yéene ak vision ak ambition bi ma am ci Sénégal benn solution laa ci gis mooy poser sama candidature pour élection présidentielle diplômé bu université York bu Canada ak Sciences Po ca Paris moom nag yemul rek ci def liggéeyam waaye dafa bëgg projet politique bii mu dal di koy jëmmal. mënuñu tabax dara ci Sénégal tant que jubboolewuñu Sénégalais moo tax li si jiitu c'est mettre en place commission vérité ak réconciliation comme ni ñu ko defee ci yenn dëkk yi comme lu mel ni Afrique du Sud nga xamante ne ginnaaw euh, guerre bi mu jàllee loolu lañu ñu en place ba mun a jubboolewaat nit ñi il faut ñu met ko en place Sénégal ci foofu la war a mën a jóge organiser dialogue li may woowee vrai dialogue bokkut ak yenn dialogue yi ñu fi gis vrai dialogue boo xamante ne sénégalais dinañ fa jóge mën a balante mais baalante bu sincère te dëggu ñu tegaat Sénégal nag ci yoonu yoonu jël fonkaat suñuy institution comme ni leen war a fonkee joxaat leen seen gëdd. Anta bëgg na ginaar loolu ak nuñ ko mën ci toggee. loolu mooy plat préféré waaye warul bett kenn ndax nag moo nekkoon présidente directrice général bu groupe Sedima am na ñetti bant ant bëgg na tamit di nekk ak njabootam waaye tam léeg-léeg mu tàngal yaram bi. avant bu yàgg xëy na maa ngi doon def plus de volleyball après def naa basket mais récemment nag plus sport de salle fitness training marche yoo xamante ne dina la maintenir en bonne santé euh, am wér parce que lii ñu dugg nag. daf ko laaj. man nag dama bëgg dama nekk wax dama bëgg di gëstu di liir di continuer di jàng ut xam-xam dafa am solo donc fu ñu ma fekk maa ngi recherche di xool di gëstu lan moo xew bitim réew lu ñu war a mën a indi Sénégal xeetu yokkute boobu su ma waree changer wu les idées nag. seetaan film ensemble dem cinéma. mu dogu loolu Anta gëm na bu baax a baax xarañteem ba noppi nag woolu boppam loolu ambition bi mën na anakan moo xam yóbbu ko. ba palais présidentiel